rahmatullahi wa barakaatu kilifa yu tàdd yi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi dajawaat nañ fii tey ci Taïf Mbacké at mu jot ñu war a def ndaje mu mel nii te tudd conseil fédéral ci teewaayu Serigne Moustapha Mbacke moom Soxna Suburi mi nga xam ne mooy président actif bu fédération bi ànd ak ay rakkam ak njabootam ay doomam ak taalibe yépp teewaayu sëriñ Khadim Mbacke moom Serigne Cheikh Serigne Omar Mbacke euh, sëriñ Khadim Mbacke Louga ak Serigne Cheikh Mbacke Mohamed nu bëgg leen a wax rek jataayu bi ñuy def tey. niñ ko bëgg a tënkee section Taïf ñu dalal gan ñi 11h40 ba midi 20 rapport d'activité ñaari at yi ñu jàll muy 2020 ak 2021 ndax xam ngeen ne 2020 defuñu ci conseil fédéral ndax xam ngeen ne mbas mi moo taxoon ba tax na conseil bii. rapport bi ñu ciy liir rapport ñaari at la yu ñu def ndax menn at mu nekk rek lañ ko waroon def soxna Aminata Lo Mbay soxna Layla moo nu koy moo nu koy tekkil mu doon adjointe bu secretaire général bi di Serigne Gàdd Sall kon midi 20 ba midi danañ jox kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi su préfet wala préfet Cheikh Ahmed Tidiane njaay mu yëkkati ay kàddu su diggante midi 30 ba midi 50 20 minutes la mooy kàddu Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy président wu fédération bi midi cinquante nag ba 13h10. ci la ñuy defee ne planning bi maanaam liggéey bi ni ñu ko nar a tëralee commission yi ak ni ñu tëddee ak ni ñu ni ñu ko bëgg a doxalee daal liggéey bi mu leer ci ñëpp bu ko defee bu 13h10 jotee ñu def pause euh, julli xéewlu 15h commission yi tàmbali ba 19h ku ci jeexal ci diggante bi nag waaye 15h ba 19h daal mooy liggéeyu commission yi. bu ko defee bu jeexee nag dañuy fanaan bu subaa ñu dellu si incha allah pour def plénière bi maanaam commission bu ne la mu waxtaane woon ñu dajawaat kenn ku ne dégtal dégtale la mu daje woon tënk ko ci beru ci ñam ko bokkal kon waxtu waxtaan wi noonu lañ ko fas yéene tëralee. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu. ci turu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Mohamed moom mi nga xam ne mooy jëwriñu section Taïf kon sëriñ bi sëriñ Moustapha sëriñ Cheikh neena mi ngi jël nuyoo waa section Taïf bépp kenn ku nekk ci mbooloo mi mënoon ngaa jël kàddu gi ci turu waa Taïf wax lii muy wax ndax yéen ñi toog fii. ak moom ak ñi màndal yépp yéen bokk benn pas-pas bokk googu ngeen bokk ak moom benn pas-pas moo leen dajale fii kon nee na mi ngi ñaan ci seen tànk yi ngeen ñëwee ba yi ngeen di delloo yal na ko yàlla def muy ngërëmal sëriñ Cheikh kenn ku ci ne ci yéen yal na ci làq ngërëmal sëriñ Cheikh nee na itam mi ngi ñaan ci ñëw gii nu ñëw yàlla na leen yàlla nañu ci boole dàqal lépp lu waaye doon ragal wala mu di ko tiit te defal ñu jàmm jàmm ji nga xane bii xam na ne déggoon na maamam ja sëriñ Cheikh ñu ne wax na ne lu waaye am jàmm ko gën nee na kon nee na mi ngi ñaan yàlla na nu defal jàmm tàmbalee ko ci njabootuk sëriñ Cheikh gi ba ki nga xam ne bii moo mujj bindu ci mbooloo mi ak ñi nga xane bii sax binduwuñu ci mbooloo mi waaye rafetlu nañ jëfi sëriñ Cheikh ji doxinu mbooloo mi neex na leen nee na mi ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla mi nga xam ne mii moo yót bu wubbit bunti kër kër yi wërsëg yi nee ngi mi ngi ñaan yàlla wubbil ñu bunti wërsëg yëpp jox ñu ci xéewal yi nga xam ne bii mi ngi koy jox jullit yi bañ mën a jaamu yàlla nee na xam ne ne mbooloom fédération bi yittewoo nañ ko te suñ ko amee duñ ko def feneen fu ci yoonu yàlla nee na mi ngi ñaan yàlla na yàlla defal jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullah